ngeen ma ci internet bi. damaa gis xam naa xalifa ku am gàllaaj la ba léegi fàtte wu ma si. Eh, jàpp na la bu yàgg. <laughs> gis benn waay bu ñu naan dofu maam xalifa. Mhm. moom la tuddee boppam. mas na ñëw waaw. ñuy partagé benn vidéo boo xam ne nee nañu dafa wax ni man nag ñaari baat dañ maa joxoon baatub euh, tas lislaam moo gën a yomb tas parti Pastef bi ma demee na xooli vidéo bi maa ngi gis maanaam ku mënta tas parti Pastef ku mënta tas l'islam mënoo tas parti Pastef mm-hmm. ñu dem àndandoo nag dem déglu vidéo bi ko jural coow après ñu ñëwaat ak coow yi ci amaat ak li ko ci dolli ñu daal di dellusiwaat. wala leneen nag benn ñaareel bi mooy tas diine l'islam ku mënul ta tas diine l'islam mënoo tas Pastef. waaye sëñ bi nag faaw nga bàyyi wax yi ëpp na nag diine l'islam ak Pastef bokkuñu quand dina lislaam lu ko taxoon a jug du dëgg. Mhm. Pastef lu ko tax a jug du dëgg. ko tax a jug kase. amul benn nar bu ko tax a jug. Mhm. xam nga Sénégal boo waxee te leeraloo ñi seen xel gàtt tuuti danañ jël wax méngale ko lu amul dama ne. Mhm. ku mënul tas diine lislaam mënoo tas parti Pastef. ku mënul tas dina lislaam mënoo tas parti Pastef. ku mënul tas diine lislaam mënoo tas parti Pastef. nga teg ko fan. ma teg ko ci ne. dina lislaam ci xol lay sax. te xol googu dëgg nga cay gis di ko ca yëg juddoo ca di ca jaamu yàlla ba yàlla fekk si la ci parti Pastef ci dëgg la sosu sax ci kenn mënu koo tas ci ay kàcc aussi tamit ak ci doole mais parti Pastef tey li ñu ko jiiñ muy wàllum terroriste ak li man de góobu taalibi sëñ Touba mën naa doon terroriste Ousmane Sonko taalibi sëñ Touba la. voilà mi ngi noonu euh, kaddu yooyu mooy kaddu dafa maam xalifa mu yëkkati ko ci penc mi tax ba jural ko coow démb ci heure bii gaañaa nga doon génnewaat lenn ci ay vidéo di wax ni kat dafay nekk ak ay soxna. bi ñu commencé génne vidéo yéet gis naa ko ca ngoon nga def na benn vidéo posté ko xam naa duñ ko teg dañuy bàyyi moom ba mu ñëw ndax euh, jot nañu Assane nee nañu way juróom moo ko wax ni ko na dalandi ba coow li sedd loolu la wax léegi nag bu ñëwee toog fii yu bari dinañ ko leeral xam naa ñoruñu sax ci photo yi ñu gis ñu ne cee ànd ak ay soxna yooyu loolu vie privée am la mais nit ñee ko commencé di ko partagé mm-hmm. mais dafa jot ci li ma gëm man wax ji mu wax mm-hmm. man dégg naa ko man soo bu ma laajoon gisuma ci gravité wu lu garaaw lu ñaaw la Euh, diine l'islam mënoo tas palato bii di solution TV gisuma ci gravité. maanaam day des càq ñii. Uh-huh. ndax nit mën naa tas diine lislaam déedéet amul ko mën a tas diine l'islam ndax yàllaa ko téyel boppam. Uh-huh. léegi nag ndax nit mën naa tas parti Pastef fan la Pastef nekk moom nee na Pastef ci xol yi la nekk loolu benn déggin la duma ko nag lay taayal ay waxam dégg-dégg bi ma ci am. Uh-huh. waaye mu des nag ni ci maanaam lislaam parti lislaam maanaam parti politique. du diine maanaam politique la ñu war a génne génn ci diine ba mu set wecc mhm. parce que bari na lu ñuy caaxaane ak lu ñuy tudd ay turi lislaam ci biir politique te l'islam amul ci politique dara wax naa ko keroog am naa ñu baal ma rek ñëw ci Omar dama leen assemblée nationale gii ñu ngi naan ay kilifa diine ak diine nangam ak sàngam te ba léegi kilifa diine yi ñoom dajaloo woon nañ ku ci nekk signé waa sàmm jikko yi ni dañoo bëgg ak ngóor jigéen ñu criminaliser ko ci penc mi mhm. ba ñu falo ñoom député ba léegi ñoo ngi toog di xaar kilifa yi toog di xaar assemblée dugal nañ fa yeneen loi yi leen neex ba voté ko ba pare ko ba teg ko ne te ba léegi jubluñ ci loolu kon moo tax ma ni amul lu leen ñor ci diine ji kon nañu génne yi diine ji ci lislaam ji euh, dofu maam xalifa mën na def erreur de communication ci li mu koy waxee ak fa muy dugal lislaam waru ko foon dugal parce que mbirum politique la ñuy wax waru foon a dugal wala muy tolloole pas Pastef ak lislaam <laughs> mais kanta ku mënta tas euh, lislaam mënoo tas partie bi mhm. man gisuma ci gravité wu wax am na euh, ku ko waxoon ci ay jamono ni diw bu mënta tas sayub ndayam mënta tas parti musasi diine yi am na ku ko waxoon ci bu fekkee ni yaa ngi dégg réseaux sociaux yi mm-hmm. indiwaat nañu wax jooju bi mu fi amee sëñ Pape Malick yàlla na ko yàlla yërëm mu ni kooku bëggoon a tas parti bi bu mënta tas par sëyub ndeyam mënta tas parti boobu loolu mënta tas parti musasi diine yi mm-hmm. Omar wax jaa ngi noonu bi mu amee ba léegi nag lu nekk génnaat na luñ ko génneel ni sëriñ bi ay la yooyu ndekk day nekk ak ay soxnaak lu ci nekk euh, di ko postel mais li nga koy génneel est-ce que dëgg la hmm? li ñu koy génneel est que dëgg la am na loolu mën nga mënoon ci poser ay questions. Hmm. ci li ñu koy génneel parce que ñi ñi ñi yàq kàddoom yi danoo nekk ci logique gu yàq léppam. waaw ah. waaw parce que kàddu yi bi mu ko waxee man bi ma ko dégloo peut-être dégg-dégg bi mu ci am moo wuteeg ñeneen ñi mais man dama jàpp ni. Hmm. graaw graawul. Mm-hmm. loolu laa jàpp parce que. waaw parce que bu di woon tas l'islam moo gën a yomb tas parti bi. waaw kon moom su boobaa yàq bi dal ci kawam. Ah, parce que mais ku mënta tas lii mënoo tas lii. mënoo tas lii. waaw ah, ah, parce que moom pas-pas bi mu am ci diine yëg-yëg boobu lay am ci partem bi. Mm-hmm. parce que part mbir moom mbir da nga koy dund rek feeg yaa ngi koy dund di ko yëg rek. Mm-hmm. même bu ko adduna bi yëpp doon weddi yow gëm nga ko da ngay jàpp ne nekk la moom Pastef dafa jàpp ne day nekk ba faw. Mhm. te loolu nag nit day egg ci niveau boobu. Mhm. bari na fi lu fi nekkoon démb ña ko sancoon nekkatuñ fi mais ba lool tey jii mi ngi fi ñuy dund philosophie boobu tey jii. Mhm. kon moom noonu la jàppee Pastef mais bu dee kàddu yooyu mën gisuma ci benn safaan boo xam ne tey jii war na tax ñu koy tiiñal ci internet bi wala déet. bu dee nag yeneen yi ñuy wane ci moom. Euh, ni ma jàppee nii ni ñu yàqee kàddoom noonu lañ bëgg a yàqee jëmmam. maanaam. bëgg yàq kàddoom ba jël ay waxam bëgg ko dëkkal feneen na leen bëgg a yàqee eh, jëmmam. Mm-hmm. mais logique boobu nag ñoo ñu nekk mooy logique bi ñu dugg ba tas Pastef jël Ousmane Sonko tëj ci kaso bi ñun mën a tëj da li ñuy tëj. Mm-hmm. dama lay wax loolu. ñun mën a tas seen parti dañ koy tas. Mm-hmm. mais comme mënoo tëj ñëpp daf ci am ñoo xam ne da ngay fexe ba duñ amati crédibilité da ngay yàq seen kàddu yàq seen jëmm ba bu ëllëgee bu ndee wax ñëpp na cambay d'accord maanaam fi ñu egg ak parti Pastef moo ëpp. Mm-hmm. waaw bu weesoo tëj Ousmane Sonko yàgg nañu tëj leader. Mm-hmm. waaye tëj permanence maa ngi ko doo gis mais ñin mënul tëj da leen yàq. d'accord te mais am na ñoo xam ne ku leen yàq yàqu. Mm-hmm. di jaar waa lew na ñëpp ñoom suñ sii dégg ñëpp. lew na dama fa am cër nag. aywa maa ngi leen di ziar baax a baax bu ci xajee rek di nga ñëwaat ci benn gravité nag incha allah bu ci xajee rek di nga ñëwaat sax ma jigéen dafa maam xalifa xam naa ñu ngi koy séentu fii ak semaine bële bu toogee fii bari yu ñu ko war nga laaj nañ ko ko laaj mais ndax vidéo bii nga gis ci penc mi jaroon na coow waaw sooy bu euh, am na ay wax yu ñu fi dégg yu gën a garaaw fuuf wax yi nii euh, ku ci mel ni sa ndijaay euh, Moustapha Diakhaté yëkkati na fi ay kàddu wax ne. waaw munoo wax euh, mu rek léegi loo ci tuddee sama nijaay. waaw bàyyi ma ma terminer ah, sooy bu ah, yàq sama sama sama lii. waaw mais neel Moustapha Diakhaté rek. Euh, sa nijaay Moustapha na fi ay kàddu bu ñu waree rey Sénégalais yëpp dinañ leen rey te ñëpp xam nañ euh, yàlla suñu boobam lu mu wax si faat bakkanu doomu aadama ah. Cheikh Yérim Seck wax kàddu yu ni mel Ahmed Suzanne Camara yëkkati kàddu yu ni mel donc man su ma amee tuuti dégg-dégg si li muy wax rek mooy que ni lislaam xamuñu certes ay jullit lañ mais mu ñuy déglu euh, historiens yi li ñuy wax ci l'islam mooy que nii bi muy door amoon na ñoo xamante ne ni dañoo taxawoon temm ne lii du lii du dem. lii du yow jàng nga alxuraan xam nga lu ñu wax ñu bëri xeex yàlla yàlla suñu borom di dimbali yonent bi ba ba tey jii nii lislaam di di law ba wër àdduna bi yëpp parce que la ñu bëggoon peut-être moom moo amul euh, tey jii nii su taxawee gis ni parti Pastef dafa yor tànk yooyu noonu nga xamante ni nii tànk yu baax la te lislaam ñëpp xam nañ ni euh, lu baax la si ñun donc kuy roy da ngay roy loo xamante ne ni lu baax la waxin bi il faut pas ñu jël wax ji rek wax ni dafa garaaw mais dafa joxe exemple fu baax man gis-gis boobu. mais est jotul itam ñu génne maanaam euh, l'islam ji ci politique waaw sooy bu maanaam boo dee jël ay référence nga jëlee ko neneen waa sunu sunu yonent yi bu ñuy expliquer dañuy wax ne ñoom dañu daan politique ñoom seen jëmmi bopp peut-être léegi politique gu léegi bi moo salte salte goo xamante ne nii. Mhm. nit ñi dégg-dégg bu nekk lañ ci am yaa ngi koy tudd tout à mbirum góor jigéen ñi tey jii nii bu ñu sañoon loi boobu. ñu ñu ñu ñu voté ko mais assemblée da ngay gis bu ñu tegee ñu ni ñoom pare guñu pour voter loolu kon donc peut-être doxin bi moom moo rafetul rek mais kàddu yi mu wax nii mooy que ni ni l'islam nekkee suñu biir xol yi ñu koy dund. Mhm. du bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm suñu borom bi noonu la ñenn ñi. yi amee ngëm-ngëm ci li nga xamante ne ni moom la Pastef di doxalee parce que bëgg nañu yàqu-yàqu yi nekk ci biir Sénégal wala ay ñaawteef yi nga xamante ne ni ñu ngi ko fi def ñu jëlee ko fi comme ni yonent yi defee woon seen xaroon seen takk tànk tubéy mm-hmm. ba yenn yu bëri yoo xamante ne ni seytaane mi ngi ko doon jëmale ci doomu aadama yi loolu noonu mu jóge fi ma dégg-dégg boobu laa ci am très franchement dëgg yàlla kantaa nag li ñuy wax ne dafa nekkoon ak ay soxna loolu digganteem ak boroomam la fii chaque jour nga gis fi nit koo xamante ne nii def bàkkaar boo xamante ne nii boo ko déggee di nga ne kii est-ce que yàlla suñu boroom dina ko baal mais su demee si ruqam julli jàpp ba set julli ñaan suñu ya ñaan yàlla yàlla suñu boroom mën na koo jéggal kon donc fu yàlla mënee jéggal doomu aadama kon nag la muy def ca digganteeg boroomam ba yàlla mën ko koo jéggal loolu ñun suñu yoon nekku ci. très hmm. franchement. aywa dëgg yàlla. noo déggee vidéo bi nga xam ni teg nañ ko léegi. ci mm. dofu maam Xalifa. rafet na. Mm. Mm-hmm. loolu laa ci am. Ah? dañ bàyyi ba mu ñëw. ñu bàyyi ba mu ñëw. Mm-hmm. d'accord alaaji mm. ndax li nga dégg ci video bi jar na coow ba di ko génneel ay lomotif wala sax bu dee lu authentique la ndax jaroon na ko wala boog it est-ce que jotul ñu jël seppi lislaam ji ñuy raxe ak politique bi di ko mottali ko waaw euh, bu dee de ci réewum jullit lañ ne hmm. euh, réew moo xam ne ñëpp ay jullit lañ euh, wax ji mu wax euh, day am rek loo xam ne ñi muy jaaxal man moom laa jàpp ni seen njullite moo des hmm. waaw parce que moom dafa sukkandiku rek ci wan la ne hmm. dëgër gi lislaam dëgër maanaam ku munta tas l'islam moom daf lay wan seet moom amut fu mu référé parce que tamit bul fàtte ni tamit nitu diine la mhm. buy jël référence euh, mënu ko jël lu dul ci li mu xam mhm. muy diine waaw euh, te it parti Pastef it nañ ko ak diine ba tàyyi waaw bërki Demba Njaay la fi ngañ Demba wax ni jihaad euh, no pas jihaad sax bi mu ne daawa daawa bi mu ne bi mu ne projet daf cee bokk mhm. ndax ñu jële ci jaamu nit di jaamu yàlla loolu nga xam ni moom la mag ñëpp di kii loolu doon problème ci réew mi mhm. euh, kii ne ko ndaw si ndaw si ne ko mhm. yow Pastef mi ñuy jiiñ ay terroriste ak loolu l'islam ci terroriste lañ koy jiiñ chaque jour bi mhm. boo demee ci boo demee ci tubaab yi balaa ñuy taal bomb sax da ngay dégg ab nodd film yi allahu akbar allahu akbar ba noppi bomb ba tàkk maanaam dañ lay wax ne la dañuy jël l'islam di ko lëkkale ak li nga xam ne moom la ñuy tuddee terroriste kon euh, ñoom bu ñu gisee tamit ñu jiiñ leen ko parce que jiiñ la ko taxul nga doon ko parce que kan mooy terroriste waaw parce que parfois il faut poser question bi nekk kan mooy terroriste parce que tey euh, boo demee ci réewu ñi nga xamante ne bi tey ñi ngi defendre seen i kii da ngay gis ñoo xam ne dañ lay wax ne la américains yi ñëw nañ seen dëkk bombarder leen rey fa ay nit def ay mbir yoo xamante ni bi yu doy waar la ñooñu amuñu doole gu ñu fayoo dem bombardé ji ñu wut pexe pour xeex léegi ñii di leen tuddee terroriste mais ki ñëw tiim ak avion bombardé la sàcc sa pétrole yóbbu di def lu ko neex kooku lan la ah, xam nga yooyu mooy yi nga xamante ni bi tey parensaay <coughs> euh, da dangay gis nit dóor la ba pare di la xam naan la yow nag dangaa bëgg ay nga fayu mu ne la yow ay rek ngay wër ñaan kii dafa bëgg ay te moom mooy ki nga xam ne moom mooy indi problème bi. d'accord kon yow ban dégg nga xamante ni kon ban dégg-dégg nga am ci kàddu yi. waaw bon kàddu wax bon man dama gis rek ne. Hmm. Euh, koo xam ne ci nitu diine la euh, di jël exemple wane ni lii ngeen di def yéen na ngeen ci tàyyi. Hmm. te xam ni munu leen ko. Hmm. maanaam danga ciy dégg ni munuñu ko. munuñu koo tas la leen wax. waaw ne leen bu dee tas ngeen di jéem munu leen ko. jox leen nag exemple bu gën a sori pour delloo leen ci lislaam wan leen ne leen am na ñu bari ñu ko bëggoon a tas mënta ne. waaw te ñu ku mun loolu mënoo lii maanaam ngëm-ngëm gi nga xamante ni bi moom lañ ci am. Mhm. parce que mu la démontré na ko wax na ko pourtant nee na Pastef lan la ñu lislaam lu mu woote dëgg la woote. Pastef mhm. lan la woote wootewul leen di tappale loolu la la wax. Mhm. ne la dëgg la woote. dëgg googu moom ci la retrouver maanaam moom ci biir parti bi da cee gis diineem parce que tey lii ñuy wax nañ ñu lislaam ji teg ko fële Sénégal dañuy daw débat yi. nañu sepp l'islam bi teg ko fële bu kenn wax ci lii loolu mooy indi problème sekk il faut ñuy dugal mbir yi. ci ah, biir parce que kon dañoo war a raxee politique bi. seppi wuñu l'islam bi de nitu diine yi lañu seppi waale jóge leen. maanaam ah, dañ cee bëgg ñoom ñi ngi ciy dugal ay Descartes li ñu gëm. seen affaire yi ñu gëm yëpp ñu ngi koy dugal ci biir politique bi. ok mais yow dañuy bëgg yow li nga gëm na nga ko seppi ci biir mbir mi ne la lii moom bu ko dugal ci politique. Hmm. moo tax politique bi du baax parce que pour politique bu baax da ngay ciy dugg ak ngëm-ngëm tey jii boo demee eh, Amérique xaw ma xaw ma am xaw ma Russie la defaa Russie defe naa bu fekkee ne président bi day waat day teg bible teg kii wa teg teg loolu. comprendre nga. non sax bu fekkee. comme fii bi ñuy waat am lu ñu yor lu ñu yor. dañuy teg seen biir gars yi ñuy li ñu yor lan la dafa am ay jullit. constitution bi comprendre nga. alaaji gars yi gars yi fii waat li yor lan la. loolu du kaamil. constitution bi la ñuy waat loolu du kaamil. yaa jàpp noonu ab constitution lu la ñuy waat. fii Sénégal waaw. waaw ah, moo taxit constitution bi. ah oui ñu koy salfaañi rek. constitution bi constitution bi nga waatoon. ah kon constitution am nañu ko gëm nii ba ba war cee waat. constitution bi daal la waat. parce que nee nañu république la nii ak naam yow boo nee da ngaa waxut ngir yàlla bu nit ñi di wax nga bàyyi leen mais bu nit ñi di wax eh, eh, yow da naan ay lii ak laa. du loolu laa wax loolu lay ree. Ah, am naa ci droit ngi dégg euh, li nga xamante ni bi tey. Ah. mooy ngëm-ngëm. nit ki bu fekkee ne dafa dugg ci politique jàppee lii ay caaxaan la dugg ci ngëm-ngëm mënu cee def lu baax mm-hmm. waaw waaw parce que nit d'abord da ngay gëm dara gis nga ñi am diine nit bu amee diine am ngëm-ngëm nga fal ko am na lu bari dina ko jombale boppam parce que diine moo ko du nangu mais bu ñu fexee ba génne ci sa bopp bi ne la yow diine ji na puus fële teg ko fee te xam ni lii du lenn ni diine moo tax boo ca nekkee lu la neex nga def ca mhm. waaw mais bu fekkee dem yow yaa ngi ciy sóor sa diine waaw je pense que waaw parce que sa sa sëñ Cheikh Coro ngi ne dugg ensemble mais xam nga lu ñu koy xamul dara ci mbir yi ñëw toog te yàlla xam na ne kenn gënu ko pertinent ci ci ci biir ah, assemblée ba ñu fi wax tubaab làkk la tubaab ah. mais dama lay jox benn exemple tey ah hmm. démb ki fi invité woon ak ki ñu invité tey ji hmm. nga xool ñoom fi ñu ref fi ñu jëlee référence tudd nu la benn tubaab. ci Serigne Touba la ko jëlee. ak seen ñoom maam Cheikh Ibra ak seen Mbay Jaxate waaw mais fi ñu fi ñu tibbee xalaat yooyu ak exemple yu ñuy jox mais ñun bu ñu ci tënkoon ñu ñëppay baax. mais boo xoolee moo gën li ñuy li ñuy indilee yow tey jii heure boo waxee yow fan ngay tibbee. man mi tey heure bu ma waxee tey jii. na la Serigne Cheikh wala mani la sëñ Abdou wala keneen ak keneen. tey jii euh, euh, sooy mënoo jàng ba pare. ñoo duñ posé question yoo xam ne yaa ngi ko gën a mën a tontu son yoobu c'est que li Omar ibnu Khattab ak Omar ibnu Abdul Aziz ay xalifa yonent bi la woon bu tey jii bu damay leen damay foofu la jëm mais damay wax mu samay wax non <laughs> daa foog da ngaa chuté. non soo ko foog da ngaa daaneel rek chuté fu ma daan. maa ngi gàll gàll gàll ma daan xam naa yow nag boo yow nag kii laa doon yemale. déedéet non doo ma yemale mënoo ma yemale ci émission bi. mais fii mais xam nga sooy bu sooy bu laa bëgg a tooñ rek. xam nga sooy bu. non da lay ruubee rek non non yemale bi moom bu ma yemale ci émission bi saa. da lay ruubee rek da lay ruubee man ànduma ci ñiy séparé. da lay ruubee politique wala politique ak diine diine war ñu ko séparé. da lay ruubee rek islam dafa yàgg politique. li am solo ci àddina su ma gisee su ma gisee ñaari nit waaw nga am loo gëm ak diine joo mën a gëm mais gëm nga ko mhm. yaa ngi de mhm. gëm nga diine am nga diine mhm. wóolu naa la parce que diine bu fekkee ne nit ki dafa am diine mooy base lépp dafa jara wóolu maanaam am na ngëm-ngëm mais li bon mooy gëm koo xam ni amul ngëm-ngëm gëmul dara moo tax bu ñu la waxee ne la nañ seppi mbir mi ci kii bul tëkkale ah kay il faut ñuy indi l'islam il faut que ñuy maanaam nit ku ne mënoo indi tey jii bu fekkoon ne dafa indi beneen diine. Mm-hmm. ñooñu mën nañoo wax. waaw parce que man man tey mënoo nekk jullit. man moom démb nag nekk di jàpp ni buy wax lu dëgër. Mm-hmm. l'islam gii la war a yëkkati indi. Mm-hmm. nga ne ko waroo ko man moom démb dañ maa man man démb dañ maa dañ maa manipuler parce que man dama foogoon ni maaraab dafa wax ni tas l'islam moo gën a yomb. tas parti waaw man dama man loolu laa gëmoon mais bi ma dégloo audio bi mu ni ku mënul ci lii dara mënoo ci lii dara. man soo ay bu man man su ma neexee ma ni ku mënul ci diine lislaam dara mënoo ci émission takk soo bii dara mm-hmm. lu ci ne mm-hmm. fii ak nit ki mënul tas diine lislaam mënut a taj émission bi yeneen i personne ñoo koy taxawee ëllëg bu ñu fi nekkul ëllëg Omar mën na fee bañ a ne mm. Sadio mën na fee bañ a yow doo fi nekk sax mën naa bañ lu ci nekk sax man jàpp lu du tey ñoo fi ne ñeneen a fi ne di ko doxal ña ko doon génn nekkatuñ fi tey alxuraan ñi ko fi bàyyi waaw sukaa bàyyi ko woon ci ay kayit yu ñuy leen xamalu ah, ci ay xeer lañ ko doon ah. ay yàq léegi dañ ko ko dajale. mu nekk baqara ngay def ni kaamil mu ñëw di ngay bës muy lool application yi di lool. ñu mu gën a méngoo ànd ak jamono. bu njëkk ba ana livre yu njëkk yëpp. buñ la wanee livre yi njëkk bind boo deful ndànk ba benn bi ci nekk doy na ni euh, taabal bii. ñu koy ubbi naan na le. léegi lan ñaar baqara ak kii léegi nga dem ba téye ko. di ko nafar léegi mu dem ba nga xamante bi léegi sa portable nga koy def léegi nga dem ba nga xamante ne bi portable da ngay bés mu ne la lii ne la lii la tudd lii la di ko traduire ah, gis naa ko gis naa boo xam ne bi euh, traduction boo xam ne bi sax vocal la waaw euh, benn bi oustaz Moustapha Guèye moo koy def benn bi oustaz Adi gis naa ko boo xam ne dañ lay waxal aaya bi ñu tegal la baatu Moustapha Guèye wala baatu Adi boo ci choisir nga choisir ko ñoom ñaar laa gisagum ñu qualifié foofu. aywa ñeneen leen. ñu macha allah.